Euh, daje bi li ko waral lu simple la dañu am benn kuréel boo xamante ni bii mooy COCEL depuis un an ñu ngi daje ak ñoom ngir ñoom ñu wax ne dañu bëgg a samp fii ci dëkk bi te sart yi ñu fi bëgg indi ak conditions yi d'accorduñ ci ñu xëy benn suur rek gis ñuy publier ne tey jii dañuy deformation dañuy former waa Touba te loolu yëguñu ko jaaruñ ko ci suñuy kilifa parce que groupe yi nekk fii yëpp jaaruñ ci ñuy woo par ay hors ngir daje def formation bi loolu fiite nag ba egsi ci ñun comme waa Touba lañ tudd nag ñu ñëw assister réunion bi fekke ko xamal leen ne leen formation mënu fi am tey. waaw li ñu wax mooy ñoom benn euh, groupe lañ boo xam ne dañuy wër électricien bâtiment yi maanaam COSYEL mooy conformité bâtiment loolu lay def lay sécuriser ba installation yi waaye nag ci biir euh, sécuriser boobu dafa am paiement bu ci teg bu seer parce que dem na ba deux cent cinquante mille te ñoom bu wax dix mille la ñuy wax. loolu mooy benn ñaareel bi mooy électricien bi dañ koy teg ay sart yu metti parce que mooy ñëw def demande bi mooy ñëw assister visite bi loolu nag lañ mënul te dënku parce que Touba askan bi fi nekk mënuñu loolu parce que dafa seet ñoom xaalis boobu noonu normalement xanaa maire bi moo leen war a laaj fi ñu ko dugal en cas daal kenn ku nekk sa première visite da nga fay 10 000 francs deuxième visite da danga fay 8 mille francs loolu mooy 6 kilowatt bi bu ko dépassé da nga fay 30 000 francs 7 ba 10 kilowatt noonu la demee ba deux cent cinquante mille te benn bu nekk am na deux cent visites loolu nag lañ ne askanu Touba attanu ko duñ ko def. ah da wax formation boo ñuy former ci lan nga ñuy former parce que courant du benn branche du benn formule lan la ñuy former mat a xam dañuy former ci circuit wala dañuy former ci tension wala dañuy former ci intensité lan la ñuy loolu lu ñu waroon a xam la avant bien avant dañu waroon a xam li ñuy former mais ki ngay ñëw di ko former tey benn exemple mën na def 30 ci terrain bi yow nga ñëw nekk benn waay bu bees di ko former li nga koy wax lépp mën na ko xam. nañ ñu annoncé avant lañ ñu ñu formé buñ ci d'accord xam nañ fi ñu wute ay formation waaw bu ñu daa arrangé ñu jël. léegi waral li waral ñu buudee mooy suñ tur lañ wax waa Touba te waa Touba d'accorduñ te dinañ la jox ay preuve am na éléments yoo xam ne Joal lañ leen jëlee ñu ngi fii ñoom ñoo leen woo Joal ne leen waa Touba d'accord nañ ñoom ñu ngi fii ñoom dinañ jël kàddu sax wax nooy formé waa Touba di jële waa Joal loolu dooy tapale duñ ko d'accord tey caution duñ ko d'accord tey duñ ko d'accord ëllëg